ne ko coro sa noir lan la coro say say da ngay tooñ wala coro zonze ah coro coro sa noir lan la ma ko xaaru noppi da ngay bàyyi la nga nuyu mbokki téléspectateurs yi coro waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax euh, Fatima Trésor di nuyu également Pathé Assane ak euh, Pape Ndiaye di nuyu également ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan bàyyi seen yitte toog di ñu seetaan di nuyu bu baax a baax waaw ah, maa ngi lay euh, fay <laughs> comme ni ma ko waxee sànq rek euh, dañuy ànd ak euh, Assane ci seen rubrique Tic et Média tey nag mu fas yéene waxtaanee li nga xam ne moom moo di revue de l'actualité des Tic et Média Assane. Fatima donc li gën a fës ci wàllu media si lañuy waxtaanee jamono ji bu ñu nee média période bi ñu ngi toll ci Coupe d'Afrique des Nations. Mhm. li gën a jur coow si mbir mi moom mooy yan chaîne ñoo koy teg. que ça soit mhm. à la télé yan chaîne ñoo koy commenter à la rajo parce que à chaque fois bu compétition internationale amee day jur coow yu mel noonu mais ce qu'il faudrait savoir mooy c'est des droits yoo xamante ne kaaf moo ko moom mais da koy mhm. jaay mhm. lu ñuy maye du lu ñuy able dañ koy jaay maintenant CAF da ko dénk UAR muy Union africaine de radiodiffusion benn appel d'offre la lancé woon euh, organisme yu bëri daal di ci euh, euh, postuler UAR gagné ko devant même LCD e bi nga xamante ne c'est c'est des occidentaux avec de gros moyens donc ce sont des africains qui ont gagné marché boobu ñoom ñoo ko géré donc depuis deux CAN yi ñu dépassé lépp CAN 2019 bi ak kan bi nga xamante ni moom lañ nekk nii ba 2023 ñoom ñoo yor droit yooyu ñoom ñoo koy jaay au nom de ñoom leen kaaflaan nag mooy 22 millions d'euros mooy leen kaaflaan ci réew yi nga xamante ni ñoom ñoo ko war a euh, disons diffuser ici ici ici euh, au Sénégal euh, en Afrique UAR y pratiquement une quarantaine de d'organismes yoo xamante ni ñu ngi si bokk parce que su une organisation c'est une union réew yu bëri yu nekk Afrique ñoom ñoo si nekk ñu ngi bokk ñoom ñoo booloo teg organisation boobu léegi ñu jël le le cas du Sénégal. actuellement la RTS moo am exclusivité cest dire moom kase moo am droit teg match Coupe d'Afrique des Nations disons match yi nga xamante ne CAF moo ko moom déjà compétition CAF yëpp parce que yemul ci CAN bi euh, CAN bi ci la bokk CAN U17 CAN U20 euh, CAN euh, chez femmes CHAN loolu yëpp paquet ci la boo xamante ne boo ko jëndee loolu yëpp yow yaa ko moom donc yow yaa am autorisation teg ko mais le le le souci foofu foofu la foofu la problème bi nekk. Euh, euh, le le 3 janvier bi ñu passé ak le 7 janvier Sénégal dafa génn ay communiqué di dànkaafu les chaînes médias yëpp fàttali leen ni RTS jënd na droit yi moom moo ko moom donc pour que nit ñi xam seen droit xam fi war a yem taxul ñu dégg ko kan bi commencé le 9 on a des des des surtout des rajo yoo xamante ni commenté nañ euh, mbir mi alors que du du yoon si la defee ak mise en demeure moom Sénégal Euh, mettre en demeure RFM mettre en réew euh, mi FM mettre en demeure Africa 7 radio donc ñoom ñëpp ñëpp jot nañ seen mise en demeure euh, mise en demeure bi nag lenn la soit dañ ne la nga arrêté di diffuser di commenter wala nga indi ay kër yuy wane ni am nga droit def ko. ku jëndul droit moom mënoo am kayit donc ça veut dire que arrêté moom moo si war parce que boo arrêté ay sanction mën na tegu ca kaw que ça soit euh, euh, suspension sa sa sa sa signal mm-hmm. ba dem ci ay ay ay pénalité yoo xamante ni si si wàllum xaalis lay doon euh, droit yooyu ñu bu ñu dikkaatee si droit yi maa ngi wax ni sànq kaaf li mu laaj pour droit yi moom mooy 22 millions d'euros moom rek moom mooy lim sas UAR. UAR moom mooy négocier ak chaîne de télévision yi. yi bëgg euh, jënd bëgg a jënd. Mhm. mais dañu jox priorité chaîne nationale yi euh, boo jëlee par exemple euh, Côte d'Ivoire yi moom moo ko gagné. Mhm. te RTI li xew Côte d'Ivoire moo xew Sénégal les chaînes privées bëggoon nañ bokk ci li nga xam mooy mbir mi. au Sénégal la RTS a payé un milliard deux cent millions. donc du du xaalis bu ndaw. du somme bu ndaw. Mhm. un milliard deux la fay ngir am. exclusivité ngir moom euh, mbir ma mais un milliard cent millions boo ko bëggee fayloo télé loolu mooy tëjal. waaw c'est mm-hmm. parce que comment tu vas pour rentabiliser loolu euh, RTS bi nga xamante ni il am na moyen wu fay loolu problème bi sax mooy RTS naka lay def ngir gagné waat un million deux cent deux cent yi par rapport ak sponsoring bi. cest à pour mu amaat un milliard deux cent millions yooyu ci ci CAN bi si diggante cinquante deux matchs yi nga xamante ni dina ko diffuser par rapport ak sponsor yi nga xamante ñoo ko si am mu dajalewaat somme boobu day jafe donc parce que le plus souvent perte lay doon si moom. et le souci mais mais Assane euh, li nga xam ne moom moo di un milliard deux cent nga xam ne waa Edna contribuable c'est-à-dire que nekkul xaalis boo xam ne ça émane directement au niveau de la chaîne de euh, lu mu yor. xaalisu Sénégal yëpp lépp lu mu yor muy xaalis boobu ak muy beneen xaalis tout que RTS yor man ak yow ñoom ña fa nekk ñoo ko moom. waaw mais <laughs> il faut il faut ñu préciser parce que. et, <laughs> aussi mise en part de cela c'est une chaîne nationale c'est-à-dire que c'est une chaîne nationale contrairement au privé. effectivement donc c'est non nationale moom moo tax mu am facilité boobu. Mm-hmm. cet argent là euh, vient du gouvernement. parce que euh, l'exemple RTI bi ma doon joxe. directeur RTI bi muy discuter ak euh, directeur UAR euh, bi nga xam ñoom ñooy jaay muy euh, Grégory Ndianka waxtaan nañ mu nekk mbir mi dafa cher pourtant chaîne nationale la mbir mi dafa cher si négociation fi ñuy négocier les autorités ont accepté de payer donc ça veut dire que foofu euh, changement du fa mën a am. Mhm. parce que quand les autorités acceptent de payer rek ça veut dire que dañuy fay ñu jox leen droit yi ñu passer à autre chose donc foofu euh, les les médias privés duñu am chance. bokk ci mbir mi maintenant. donc euh, Assane wala ñuy génn foofu euh, média euh, national comme mhm. tey jii amul droit aussi ci un milliard deux cent millions yi nga xam ne da ko war a fay mu xool les chaînes privées yi bëggoon a diffuser mu séddoo ko ak ñoom soit mu ñoom ñu am lu ñu joxe ci biir un million un milliard deux cent millions yi mais ñu am match yoo xam ne ci la ñuy limité wu comme tey jii bu Sénégal day football lu ci mel ni Walfadjri tey jii am droit wu teg boobu le match mais dugal na xaalis loolu amu ci c'était l'objectif de, de, de beaucoup d'organismes Sénégal lépp ñoom loolu lañ doon waxtaanee parce que même en CAN bi passé 2019 euh, boo xoolee le directeur euh, Grégory Ndianka euh, bi nga xam ne moom moo jiite UAR di jaay les droits discuter bi muy discuter ak RTS discuter na par exemple ak Mamadou Ibra Kane bu Imedia mhm. discuter na ak TFM je ne sais pas ndax discuter na ak Walf ou parce que si discussion yooyu mooy naka la ñuy waxtaanee ngir mu doon un achat groupé ñu mën koo séddoo et ça foofu la ñu waroon jëm parce que bu ñu la laajee vingt deux milliards vingt deux millions d' euros yow sa la war mooy nga am say vingt deux millions jox ko kaaf mm-hmm. mais malheureusement UAR dafay teg une course à l' exclusivité boobu nag moom mooy plombé li nga xamante ne moom moo xew ci mbir mi euh, bu fekkoon les chaînes ñu on au moins au Sénégal sept chaînes yoo xamante ni mën nañoo dajale un milliard deux cent mm-hmm. au minimum set man nañ set loo xamante ne mun nañ dajale un milliard deux cent sans problème donc maintenant bu foofu bu amee RTS mooy am euh, li nga xamante ni moo du mën exclusivité mais mooy am priorité si si yenn chaînes yi yeneen yi ñu waxtaanee naka la ñuy def naka la ñu see séddoowee donc ça si seen possibilité mais euh, point exclusivité boobu moo boobu nga xamante ni UAR euh, dugal na ko ci moom moo plombé loola euh, ku si mel ni Aboubacry Ba dem euh, tam nekkoon RTS aujourd'hui mi ngi mi mi ngi mi ngi euh, génne mooy directeur jóge na canal dem na génne mooy directeur Six Média euh, loolu la doon kaas il a dit carrément au au DG que ni il faut faciliter au média privés l'accès à ces à ces a ces droits te pour faciliter leen l'accès bi moom mooy les médias nationaux ñoom ñu fi nekk ñu mun nañu waxtaan seen biir xool nag la ñuy déléguer RTS la négociation mm-hmm. mais ku si nekk joxe sa participation parce que bu participation yooyu après sponsoring bi mën na ko euh, euh, indiwaat mais un milliard deux cent boo ko dugalee sponsoring du du yomb nga am ko si benn compétition de quinze à vingt jours avec cinquante deux matchs seulement. xaalis bi ñuy joxe noonu dañ koo moomu rek comme sunu gafaka la privé bu ko ci doon joxe di am noo def ak ñeneen ñi. il faut ñu ñëpp xam nañ ne que maanaam Sénégal à défaut peut-être mu nekk sport sport bu mel ni que làmb boo xamee ne mën nañ en intervalle de deux mois de communication ñu rassemble regrouper ou bien rassembler benn benn cinq cent millions loolu c'est bien possible parce que am na ay promoteurs yoo xam ne que wax nañ nekk que maanaam combat bi bu woon sponsor tel donc du yegsi fii mais ak euh, euh, euh, rentabilité bi mu war a am cest dire même su fekkee ne que média public la RTS la xaalis bi mu ngi jóge ci gafaga nguuru Sénégal c'est-à-dire ce serait que ñoom aussi ñu teg euh, maanaam ay euh, en tout cas base yoo xamee ne que c'est sûr que dina am ay revenus yu yu yu tolloog un milliard deux cent yi wala lu ko lu ko raw balaa ñuy génn un milliard deux cent di ko teg ci sa ci table ci cest à loolu noonu dafa waroon nekk garantie parce que Coupe d'Afrique des Nations la nekkul compétition bu ndaw. et quoi qu'il se passe bu ñu demee ba war a débourser un million un milliard deux cent teg ko ci table ji c'est-à-dire am ay garantie yu leer que ne exactement dinañ am aussi donc euh, revenu bu toll noonu parce que donc euh, foofu yëpp lépp li ciy intervenir moom mooy la dimension euh, marketing en communication entre autres te loolu noonu c'est pas nekkul affaire benn nit wala affaire benn structure mais c'est tout un ensemble boo xam ne daf koy daf koy daf koy daf koy daf koy invoqué alors mais am am nañ ay structures yoo xam ne nag ils sont spécialisés que dans la recherche de de de partenaires de sponsoring de entre entre autres yàggoon nañ fi donc mën na ci citer sax euh, euh, bon pour ne pas faire de publicité ñu ñu ñu bàyyi mais je pense que su ñu su leen leeree ne warul mën a am rentabilité. ci lii ñuy def un milliard deux cent yi waroon nañ rusa yemale mbir mi ci seen ci ci seen bopp ñoom kese quoi non foofu foofu parti en fait mm. euh, je vais dédouaner la RTS parce que mm. RTS n'est fautif en rien du tout. parce que depuis des années nag lii bu xewee rek gars yi dañ dal ci kaw RTS. mais lii du RTS. d'accord non parce que. Euh, non au-delà de ces autorités c'est l'UAR. kii jaay droit yi la d'accord le terme exclusivité moo bloqué c'est vrai bu sa bu sañoon mm-hmm. si si ni ma déggee mm-hmm. euh, kii gère seen seen desk euh, des desk euh, sport seen seen service sport sax parce service la foofu mm-hmm. mbuub ñoom sa sañoon mu nekk un partage avec les les les médias privés parce que si la leen di gën a faciliter le le travail si la leen gën a faciliter les moyens mais du RTS mhm. li ñuy daal si RTS euh, cette fois-ci moom mhm. sérieusement d'accord euh, du moom moo fautif donc parce que ni mu ko ni mu xewee fii noonu la xewee si yeneen yeneen pays yi mhm. la naan UAR il y a au minimum trente quatre euh, organismes si nekk c'est une quarantaine au minimum trente quatre donc te ñoom ñëpp c'est jaay moo imposé lool même si les uns ils ils disaient par exemple en 2019 que ni ubbi na ay portam ngir recevoir tous les directeurs de de média de médias tous les euh, disons représentants de médias ngir waxtaan naka la ñuy def ngir jaay leen mais mujjul fenn waxtaan naak ñenn ñi mais taxul jaay na taxul mu jaay leen taxul mu nangu euh, dindi euh, exclusivité boobu nga xamante moom mooy permettre sénégalais bi euh, guinéen bi malien bi marocain bi seetaane si télé bi ko neex kan bi <laughs> mais kan bi télé bi nga koy seetaanee par force parce que diw moom moo ne exclusivité boobu laay jaay 1 milliard 200 yooyu nga soxla woon Sénégal 1 milliard 200 yooyu nag na dugg sa poste rek loolu moo gën a c'est c'est mais est-ce que aussi moom muy muy muy jaay signalam c'est-à-dire instant bi match Sénégal di am bu fekkee ne que Walfadjri soxla na ko par exemple mu taxaw ne ma ne ma. non xam nga R yow boo. waaw aujourd'hui aujourd'hui ah, ah. Walf bu bëggoon teg benn match. Mhm. du négocier ak RTS. UAR lay négocier en fait c'est ça c'est ça le souci farankulaay na <laughs> c'est c'est ça le problème en fait UAR moom moo moom mooy moo moo ko détenir c'est-à-dire dañoo teg marché dañoo lancé appel d'offre mu gagné ko bi mu ko gagné nag moom mooy jaay ok maintenant problème bi mooy ni muy jaayee moo indi problème parce que balaa ma lay jaay dama lay xam amul droit jaayaat keneen bërki démb moom bi nga xamante ni coow li am na RFM euh, Rewmi FM ak euh, Africa 7 rajo bi ah. biñ biñ bi ñëw euh, diffusé match Cameroun Burkina match bi nga xam moo njëkk si kaan bi moom il a fait une sortie moom Grégory Ndianka bi nga xam ne moom moo dirigé UAR def na sortie rappeler leen à rôle leen ni RTS moom moom moom moom kese moom moo am droit teg te keneen ku euh, enfreindre droit fi mu nekk nii loi bi yoon dina teg dal ca kaw ils vont rester duñ ci duñ ci rus dara duñ ci xalaat dara boo ko tegoon tey jii ñu indi la mise en demeure nga defaat ko ñu ñu ñu fayeeku la da ngay fay par force donc foofu la ñu war a xoolaatee politique boobu ñu teg la CAF liggéeyam moom mooy fexe ba kaan bi daw ci réew yëpp mm-hmm. peut-être ils l'ont réussi parce que mi ngi daw Sénégal. Mhm. ñu ngi koy seetaan Sénégal peut-être ils l'ont réussi mais la manière bi muy dawee Sénégal neexul Sénégalais yëpp. Mhm. te foofu la ñu waroon jëm. ku si nekk nga am droit seetaan télé bi la neex seetaanee match bi télé bi la neex. Mhm. et pour ñu egg foofu il va falloir nag ñu din exclusivité bi mu nekk loo xamante ni dañ ciy waxtaan les médias euh, euh, jubóo te loolu aussi euh, organisme yi nga xamante moom mu yore. patron patronat bi war nañ ci tel a jug tel seen liggéey laataa ñoo dem ci kan bii di ñëw muy CDEPS par exemple. Hmm. Euh, waxtaanee mbir mu ne mel laataa ñoo dem kan bi ñuy ñëw nga xamante ni euh, possibilité boobu dina dina mën a am. Hmm. Euh, bu négociation amee moom depuis deux ans mi ngi def ay séminaires avec les journalistes ci renforcement de capacité mais j'aurais préféré que mu nekk loo xamante ne du yem ci ci ci mbiru Covid parce que surtout si loolu la ko la mu ëpp lim ko def ci couverture bi ak Covid bi. mu indi ko ci loo xamante ni dina permettre à ces médias là de tirer bénéfice de de de, de, de des compétitions africaines parce que euh, c'est des périodes yoo xamante ni vraiment euh, yu mën a sukkali média la rawatina suñu média yi nga xamante ni franchement c'est c'est c'est difficile. Mm-hmm. Euh, surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk privé bi. donc euh, pour rappel RTS ko moom <laughs> ndëgu ñëpp xamee noonu. Mm-hmm. da koo jënd fay na un milliard deux cent millions. moo euh, moom cinquante de match yëpp yemul ci CAN bi ak yeneen compétition yi nga xamante ni. Euh, dina am dina am fii ba 2023 donc UAR euh, moom mooy jaay moom la ko jaay. pour pour pour que ça soit clair quoi donc qu'on arrête de stigmatiser fii nii si si sur ce cas là RTS ak CNRA. ils n'ont fait que le droit. Euh, deuxième euh, deuxième peut-être information bi xewaat tamit ñeel les médias moom mooy assise des médias euh, tey lay débuté waxtaanoon nañ fii il y a mhm. deux semaines ak Bamba kase donc tey lay voilà tey lay débuté ngir waxtaanee li nga xamante ni moom mooy suñu métier bi ak suñu li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe yi mhm. naka la ñuy def ngir soppi naka la ñuy def ngir gën koo ñoŋal mais dès bi am na ay friction tàmbaleegul ñu gis euh, patronat bi génn ab communiqué ñoom ñoom Mamadou Ibra Kane euh, bu CDEPS di wax ni ñoom duñ ca dem parce que euh, bërki démb lañ leen door a jox lettre invité leen ngir ñu ñëw waxtaanee ko mm. te ñoom jàpp nañ ni mbir mi solo gi mu am ci ci presque colo gi mu am ci ci ci dayo ci réew mi ci démocratie ndaxte euh, presse daanaka moom mooy dama tax démocratie am euh, waroon na doon loo xamante ni teel nañ leen ko yëgal ñoom ñu teel a waxtaan seen biir préparé wu ngir mën cee bokk euh, muy mbir moo xamante ni moom moo si xam de l'autre côté ñi nga xamante ñoom ñooy ñoo organisateurs yi muy muy seen pix ak seen seen njiit Bamba Kassé di wax ni liñ jàpp moom mooy patronat bi li ñuy ragal moom mooy ñu wax loo xamante daanaka du leen arrangé à chaque fois bu ñu gisee ni seen i si xaw nañ ko menacé rek dañuy rebifé wu wala donc muy loo xamante ne euh, jur na coow laata ñu si egg te li taxoon mu jug moom mooy bañ coow am. Mm-hmm. moom mooy raxas moom mooy póot póotum biir mais euh, tàmbaleegul tey la waroon tàmbali euh, à 9h si si kanam tuuti. coow li coow coow li commencé na donc ça veut dire que euh, assainir cette euh, euh, presse bi ñu nekk nii dina dina jafe lool bu fekkee acteurs yëpp ànduñ juboo mhm. nga xamante ne ngir indi des des des solution te li koy tàmbali nag moom mooy toog waxtaan toog waxtaan boobu ñi ko war a dem liggéeykat yi si lañ bokk ñoo koy jiite parce que ñoom ñoo organisé muy euh, syndicat yi patronat bi munuñ munuñ munuñ euh, see bañ a bokk yeneen partenaires yi euh, la société civile les parti politiques parce que ku si nekk am nga pàcc boo xamante ne war nga ko wax si presse mhm. ndaxte presse daa am lu mu lu mu sëkk ak yow presse daa am lu mu sëkk ak démocratie mhm. alors man bëggoon naa intervenir ci wàll gi parce que vraiment liñ ci liñ problème yi ci am moo bëri mhm. parce que problème bi ci jiitu mooy Synpics moment bi mu tànn pour def assise période bi baaxul. parce que assise des médias la def maanaam secteur presse ñu ciy yëngu. Mhm. alors que bi dafa nekk moment boo xam dafa am ñaari xew-xew yu mag yu am. Mhm. muy campagne électorale bi nga xam day mobiliser journalistes ak Coupe d'Afrique bi également nga xam ne ñu ci bëri suñu journaliste yi dañ fi jóge dem pour couvrir ko donc bu fekkente ne da bëgg woote woo ay assises yoo xamante ne pour journaliste yi nga ko defal presse bi en tout cas ñi yëngu ci ëttu média muy journaliste yi ak techniciens yi alors que ñooñu actuellement dañu préoccupé par deux grands événements donc affaire bi ça risque de vraiment résultat yi nga ci séntu nga bañ ko am donc lu toll ni assise des médias nga xamante ni dafa laaj génne xel ak xalaat réflexion naka lañ la ko mën a yëgalee ci ñaari fan ñaari fan nga bëgg a ça yow da fa nar a rek toog naan xus ma ñam donc man bu ma doon célèbre j'allais faire la adopter la même posture il faut que Synpics respecter les patrons de presse muy deuxième chose troisième chose idée assise des médias assise de la presse mais idée bi c'est une idée qui appartient à la CAP mooy la cellule euh, euh, te communiqué bi CDEPS génnee mi ngi ko ci rappelé parce que organisation yi nga xam ne ñoom ñoo composé CAP yi nga xamante ne CGRS ci la bokk man jiite woon naa ko donc idée boobu noonu c'est pas une idée du SYNPICS SYNPICS dafa sàcc idée euh, coordination des associations de presse muy muy muy nga xam te moom mooy CAP donc vraiment démarche bi kenn xamul nu nu mu mais man li ma ci gën a mooy période bi ñu choisir nga xamante ne ci dem campagne ba yaa nga ca nu mu tuddati. yaa ngi ca ci ñaari événement yi nga choisir période boobu noonu pour bëgg ci def li vraiment ça risque de. Mhm. am na euh, am na am na solo torop mu euh, nekk loo xam ne nii euh, bu ñu koy tànn te mu nekk loo xam ne dafa war regrouper ñëpp ñu war cee génnee xalaat war koo waxtaanee noonu man jàpp naa ni war nañ ko waxtaanee à l'avance ba bu ci defee rek date bi ngay jël ku ci nekk ci ñoom dina ci gis boppam on va marquer une pause ñu dem ñëwaat ci seen plateau petit déj sur la voie des sans voix. concentration, de l'énergie, surtout à certains moments. Heureusement, je suis là et je ne suis pas seul. Le lait Alib donne à mon jambar la vitalité dont il a besoin au quotidien pour assurer. Dans un verre de lait Alib, il retrouve les vitamines nécessaires pour rester en forme tout le temps. Des protéines pour sa croissance et du calcium pour le rendre plus fort. Et moi, je gagne le plaisir de voir savourer le lait qui agit au quotidien pour son deuxième partie plateau bi ah huit heures euh, jàpp dix heures seen euh, plateau petit déj ah, fii sur la voie des sans voix kon boog euh, naka noonu rek dañuy ànd ak ki nga xam ne moom moo di Pape Ndiaye ci seen rubrique justice.